di jalan nuyoo di ci wuutu jabootam bu tedd gi nga xam ne moom la ñu bàyyeek ba daan wax ne ñaari njaboot laa am njaboot gi ma meññi ak gi ne gi meññi man cheikh man cheikh mën naa tudd cheikh abdallah ak seeni rak ñom ñep cheikh ahmad waye suma ne njabot giñ ma meññal mën naa tudd mustafa mi nga xamne ne moy directeur télévision bi ak radio bi mën naa tudd al oustaz Hassan Diouf mi nga xamne radio wal fajr su fekkone jëm la man nañ wax ne moy roxu gi bu jele ci sidi muhammadul amin ñas mën naa tuddaale mbooleem personnel bu nek fi di liggéey ci wal fajr ñepp seen taxaway rafet da ku fi ñew rek da ngay wax ne sidi muhammadul amin mi ci kaw rawat na bo ñewé ba gis otom bu ñuul bim daan wàccee ko gaari ci buntu kër bi soo ñëwee te xamuloo ne xaw rek da ngay foone dara sotteekuwut kon yéen ñepp maa ngi leen ni ci seen tour la leen nuyo seen tur tamit tabaarakallaahu moom laa porté wuutu ci mbooleem jaami yàlla yi fi mu ngi nekk gannaaw loolu lépp nag tabaarakallaahu nit koo xam ne dafa marqué dundam lislaam dafay santaane bu wanee gannaaw ñu koy fàttali alquran saxal na ko xadiisu sayidina muhammad saxal na ko waxi borom xam-xam yi ci téré yi tamit saxal nañ ko ba mujj nekk na sax mu ijma bo jëlé ci alquran fo fekk waskur lo fekk ci alquran rek jambar ju marké du dem lay fatte motax bo jangé jàngee suratu mariama da ngay dégg yalla tuddu fa ñenti waskur waye ñenti ñoña kenn ku ci nekk da nga marké sa jàng ci jàbono jo xam ci lëndëm la jamono joo xam ne fésal mbaax ci jóge jamono lu jafe la mu ne kon ñun nañ leen fàttali moo tax mu ne waskur fil kitaabi ibrahima lu tax mu ne innahu kaana bam ko mu ne waskur fil kitaabi muusa lu tax mu ne innahu kaana mu ne waskur fil kitaabi ismaila lu tax mu ne innahu kaana waskur fil kitaabi idrisa lu tax mu ne innahu kaana kon ñii dañoo marqué seen jamono yàlla sant ñu leen di fàttali boo jëlee ci xadiis ci xadiis boo xam ne imaam Daylami indi na ko ci musnadul kabir musnadul firdaws imaam Suyuti indi ko ci jaamiul kabir yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne zikru saalihiin kafaaratun li mu ne gaa yu baax ya marqué seen dund marqué seen jamono fàttaliku leen yow mi koy fàttaliku rek yàlla dafa lay effacer sa bàkkaar yépp nga seet wecc ñaareel boo jëlee Sufyaan ibnu Uyayna taabiix yu bu mag boobu di borom xam-xam bu mag dafa daan wax ne inda dikri saalixiin tatanazzalu rahmaat mu ne fu ñu fàttalikoo gaay yàlla yi rek yàlla day taw taw biir ma li ci kaw jàmm sayduna ibnu abbas sayduna ibnu abbas dafa daan wax ne bari leen lu ngeen fàttaliku sayduna omar ñu ne ko lu tax mu ne fàttaliku sayduna omar mooy fàttaliku jëmmi maam mooy fàttaliku jëmmi dëdd mooy fàttaliku jëmmi ragal yàlla mooy fàttaliku jëmmi mbaax kon yëpp ma tudd tey ci ay nusuus dafay tegtale wérab fàttaliku nit koo xam ne ku baax la woon marke jaxam te sikk amul ci ne Sidi Muhammadul Amin min ibadillahi saalihin jaamu yàlla yu baax yi ci jaamu yàlla yu sell yi ci jaamu yàlla yu maandu yi ci jaamu yàlla yi gën a baax ci jamonoom ca la bokk mu nekk koo xam ne nag duñ koy fàttaliku sax fàttaliku ku ñu fàttali koy def ndax ab jullit bu génnee àdduna mbokki jullitam gas ba mu xóot ci suuf denc ko def nañ li leen seen borom sant waaye am na ñoo xam ne xamuñ ci kaw suuf yow mii nit boo leen dencee ci suuf tamit yàlla dafa leen denc ci xolu jàmm Sidi Mouhamadul Amin yàlla nga ko denc ci xolu soppe yàlla nga ko denc ci xolu képp koo xam ne mbaax saf na la rek képp koo xam ne am nga tomb tomb mbaax lu mu tuuti tuuti rek boo vérifié sa xol rek Sidi Mouhamadou Amine am na ca place kon nit la woon koo xam ne soo ko doon tënk da wax ne nit ku mag boppam la waaye nit ku man boppam la mag sa bopp mooy Sidi Mouhamadou Amine dafa mag boppam ci mbaax mag boppam ci xam-xam mag bopam ci hitte mag bopam ci deug mag bopam ci ko nango liggéeyal askanam liggéeyal réewam liggéeyal lislaam batay bo boo dundal dundam nga exposé ko wax ay jaar-jaaram ak liggéeyam yépp après na nga effacé date de licence bu ko nit ki ñew di lire ku ko xamul fay wax ne ki ngi bokku ca ndax mbax gi nek ci mom ak xam-xam bi nek ci mom ak deug gi nek ci mom ak manu gi nek ci moom wut ak jamono ji mbi kon mag na bokk waye ñaare bi ku man boppam ñi bu man na boppam dañuy fon rek mooy ku mën a sanse ku am kër gu rafet ku am auto bu rafet lool du man sa man sa pire gor lu ba liggéeyal sa askan liggéey boo xam ne même boo fi yàggut liggéey bi yàgg fi Seydi Mouhamadul Amin yàggu fi de mais yàggee na fa yàggee fi nag moo gën yàgg fi lu jar a xel li alquran di wax ne sa naktubu maa qaddamu wa aathaara wa kulli shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin moom boo seetee jeexitalam moo ëpp dunda loolu nag ku ko yàlla defal rek bàyyi nga sa xel ëllëg sa taxawaay ëllëg sa kanam borom bàyyi nga xel tamit li nekk ca gannaaw dee kooku la ñuy tuddee ku muus moom la yonent bi ne al man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt kon jëmm la woon joo xam ne ku mag boppam la waaye jëmm la woon joo xam ne ku man boppam suñ la santee di la waxtaan ci yow sax da ngay gëlëm da wax ne waaw man ci ban naaxiya laa koy duggee ci ban côté ban côté laa war a jël ban foset laa war a jël maanaam ci ko yàlla jagleel damaa war a wax ci Seydi Mouhamadul Amin relation ak alquran te loolu rek doy na waxtaan wala damaa war a wax Seydi Mouhamadul Amin relation ak Makka nga xam ne même bu jëmmal ji dëkkee Sénégal tamit xol ba moom màkk la nekk wala damaa war a wax Seydi Mouhamadul Amin ak nangoo liggéey bokk ki ñuy njëkk ci entreprise bi bokk ki ñu fiy mujj wala damaa war a wax Sidi Mouhamadul Amina bàyyi xel gim bàyyi woon xel population Sénégal ak yërëm gim yërëm woon néew ju doole ak xeex gim leen doon xeexal ak kaas gim leen doon kaasal fu mu nekk ak lu ko mën a jaral wala damaa war a wax Sidi Mouhamadul Amine ak dëggu fu mu fekk dëgg fu mu fekk dëgg kàddu dëgg dana ko yëkkati jëmee ko ci fépp fuy palaasam ak lu ko ca mën a jur dugg na kaso ay yoon lu ko dugal kaso yëpp dëgg rek la. kon li yonentou bi afdalul jihad kalimatul haqq inda sultan jair koku dundam bi ci la ko ñu yépp yëpp nag boo doon wax nga ne Seydi Mouhamadul Amin ak alquran nga ne mooy borom ñetti kaamil ya dafa amoon kaamil boo xam ne par ñetti fan rek la koy wàcc am kaamil boo xam ne par une semaine la koy wàcce Kan, da bu koy wacce kat dafay dajale njabootam ña fa nekk ñëpp mu jang xatma gi ñaan ñaanal leen dalat kan mu ne ma kamil bi ma ngi ko jele ci sama wajur wu jigen ci la ko donnoo muy ak ñaari fan bi ak juroom ñaari fan bi ma ngi ko jele ci sama mak seri se bay aliou ñess moma ko joxon bañ nekké ci kasso ak benen kamil bi nak bu ñettel bi moy bo xamne man mako tomb sama motax fo dajé mom bu la neex ini, ko sa ñetti kaamil yi tay ci waqaf bi ban nga tollu ci ban ñu la ma ngi tollu ci bi ci bi bi ma ngi tollu ci bi bi ma ngi tollu ci bi fu mu tollu ñetti kon koka relation mak alquran doy na sëkk kon bu demee ba fan club bi dajé tuddu fi bu am solo bi ko ci alquran ci ay kami, soppi def ko ni ci rew mi ak ni ci bitim rew a ah, wacce ngeen kaamil ku wàccoo kaamil ta yalla sant ñu ñi wacce alquran may dafa ñu sant ñi wàccoo alquran wàccoog alquran moy fexé ba lu def ndigal ya fexé ba lu baye tera ya bu uppe nga tiit bu begle nga beg bu warate nga waru bu xisa nga yeng waye di wàccee kaamil dul jeex ta yow makoy wacce alquran su boobaa da ngay dugg ci rubba qaari in wal quraanu yalanuhu ñaareel bi boo ne Seydi Mouhamadul Amin ak Makka bokk na ci ñi ëpp luñ dem Makka ci diggante aj ak ci diggante umra ci famille bi ba tax na mën nga wax ne daal bu sa bu jëmmam ji dëkkee Sénégal xolam ba moom màkk la dëkk la waajuram bu tedd ba waxoon Mawlaay Xalifa Alxaaji Muhammad ba mu ne qalbuhu samma rahinun law gadal jismu barida moo tax kon xolom bi màkk la dëkk boo ko fa nuyoo mu fayu boo ko fa laajee ñi ñi war la ko ba tax na gis nga sax tukki mi mujj tukki ñëw rek wuyu ji boromam màkk la màkk la bàyyi ko rek ñëw tabarakallah wuyu ji suñ borom waaye boo ne woon amin kham kham niko sama mbokk mi al ustaz ma jamaka wax pous ci téré kham kham ñor leen kham kham kham sayyid muhammadul amin ak dimension lu mu neew néew bind na lu ma fukki téré yi mu def ko ci langue arab li mu def ko ci langue français li mu traduire ko te téré yooya ben bo ca doy bo ca japp rek ben bo ca jang rek man na defar sa aduna man defar sa allah kon moom li activité yi bëri yépp terewutoon mi ngi bànneexu ci ci ci ci xalimba am xalimba bu dëgër nag la ko yàlla jox ci arabia am xalimba bu dëgër ci français ba lu ca bind boo ko liiree loo ca dollee ko nga cay fekk mais doo ca fekk loo cay dolle kon euh, euh, diggante Seydi Mouhamadul Amin mbind rek loolu doy na xam-xam man nga wax ni bokk na ci liggéey yi mujj a def mooy mbind gis nga sax ba muy génn àdduna bàyyi na fi téere bi nga xam ne ngoon lañ fi war a dajee def dédicace bi ñëpp lañ ñëw ñëpp ñëw tamit jàpp ci bind na ko ba pare avant mu koy génnee yàlla jël ba kanam mu bokk ci mission yi mujj a def tamit toppaat téere waajuram yépp lépp mu topp ko minal alif ilal yaa ci mbooleem boxoor yi mu way Cheikh na Tijaani ak boxoor yi mu way Seyduna Muhammad salaa sallam baxru bu mu dem ne bii basid la titre ko wax mawdu' bi nga xamne mom la wajurum bi di def mu titre ko ci ki bi bu demé tim bu ne bahru bi tawil lam wax ko bu bahru bi di wafir mu wax ko bu bahru bi di kamil bu wax ko bu bahru bi di mujji taf mu wax ko ci mbooleem buxuuru cheikh yeb ben bu ci nek titre nako ci ñaari diwanam yi nga xamne wajurum bu tedd bi mawlaay xalifa alxaaji muhammad bàyyi na ko loolu rek doyoon na liggey lo rek fekkon defuton dara lu dul def lo rek doyna sukk ci liggey bi ci tegu timit boo jëlee Seydi Mouhamadul Amin ak xeexal askan bi féetewoo ak askan wi tey féetewoo fi gën a jafe fu mu gën a jafee rek moom foofu lay tànn moom bëggul lu yomb lu yomb bu ko nuyoo lu jafe yomb ko lu maanaam lu lu yomb bu ko nuyoo lu jafe nuyu ko dafay fay li jafe jox ngant ne ko yow mi yomb demal man tànnuma yomb lu nek rek lu jafe la cay tànn waaye xam nga ne féetoo ak askan di len fompal seeni ronxañ di leen sen kaddu yi man ta wax la la ca mën a ak liko ca fekk billahi kenn jëru ko ko dul yalla te lolu xex na ci bataay motax moo nit ñi dañ dul comprendre nit motax bam fi nekkee xam nga ni sidi ci doon waxatina lu mëna wax dañuy wax ne ah waxatina de waaye nak bam deme demee ba wane gannaaw lañ koy door a comprendre ah siidi waxoon na ko de siidi waroon na fee nekk wax ko de kon ba mu fiy waxati na la tudd waaye ba mu gannaaw waxoon na ko ak waroon na fe nekk wax ko rek la ko di classé ci li si siidi muhammadul amin daj askan wi waat naa ci yàlla bëgg ko askan wi fayoon kenn du fi xaj ndakaaru gi sax du fi xaj ndakaaru gi yépp laa wax duñu am fu duñu am fuñ dalal gan li mu li mu liggéeyal askan wi néew na Sénégal bi ko liggéeyal aw askan ci fi mu gën a méttee ci fu mu gën a tàngee ci fu mu gën a jafe moom daal dafa mel ni yàlla da koo wàccee woon pour mu jàng aayat wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin moom loolu la tànnoon pour nekk dundam bi lepp ci lool rek la ko jeexal xeexal askan wi féetewoo fa mu gëna metti tang naaj wi pour askan wi nekk ci kar gi tang ndox mu tang ndox mu tang mi pour askan wi mën naan ndox mu set tànn dund bu njagas pour askanam mën dund dund bu neex loolu rek ci la jeexal waye bo boo jëlee muhammadul amin ak liggéey liggéeykat kat la ndax ku ku yalla dogal nga judd donno alal def say effort def say gor ba mën taxawal entreprise bu tollu ni nga xamne ay millions yi millions yi millions ñoo ci mu ci sa dund ay millions yi millions yi millions ñoo ñoo ci nar ñoo ci nar jarri fi ba yow nga te kat nga nek kenn ki ñu andak li nga taxawal yëpp da nga wan yi ko bokkal ne leen ci kenn léegi ne ñent ñenteel ndax man may dem di lijjanti ji luma leni fay ta man kenn fay ko te Oustaz Hassan mi xamna ci leg leg wer wer de mu toll ci fo xamne da fay mujj di jaay ay bex pour mën jaay pour man pour mën fay da na dund ci situation xamne yow koy yërëm dang koy yërëm waye moom du découragé wu liko ko metti ci kaw suuf moy wer de amul lu fay loolu moom li ko gënoon a métti ci kaw suuf la fi su boobaa tamit lu mën a def même buy jaay ay kër wala mu jaay ay oto wala mu jaay yeneen i pour fay nit ñi alhamdulilah rabbil alamin dana ko def moo tax nekk na fi ba bàyyee ko ba bis ni ki tey doomam ji wutu ko kenn mës gis waaw wal fajir yu taxaw di ñaxtu ne fayuñu kenn mësu ko dégg kon li muy tekki mooy nanguutoon a lekk benn ñàkk doomu aadama waaye tamit njaboot gi ko yàlla jox tamit ñu gore la léegi-léegi mu fay le vingt-huit léegi-léegi mu fay le vingt bu tardé ba tardé le vingt léegi-léegi bu tardee tamit ñuy liggéey dañuy dañuy comprendre ne ah buñ toogee ba léegi jotaguñ suñu sol bi rek am na lu kon moom loolu liggéeyam la woon kon nag la daan yonent bi sallallahu alayhi wasallam atul ajira ajrahu qabla an yajufa araqahu ci la ci la Seydi Muhammadu Amin jeexal dund mune jox len baaju bi liggéeyam ku la liggéeyal bu deme ba liggéeyam jeex fay ko bala ñak mu mus mais ñi ñiy lo nit ñi jallar bi ku bañu ñak ñi mus jallar bi ko dila topat dila di ba mu di ñak lolu sidi musu ponal ko am sidi muhammadul amin ak am yaakaar ko am yaakaar lo japp na li donc boo ñëwee bëgg ko cee découragé sax moom tabaarakallah da ngay fekk yaakaaram yegg ci noo xam ne yow sax boo amul chance mu dugal la ci moom daal mos ta ñàkk yaakaar ñàkk yaakaar mosul koo dab ci dundam te léegi-léegi nit ki dem ba ci kanam yaakaaram tas waaye moom yaakaaram mos ta tas ci dara moom daal niru na maamam sayduna muhammad sa alayhi wa sallam ci yaakaar bi dëgg xam ne bi mu demee taayu fa ñu koy sànni xeer ak ba jibril ñëw ne ko ñaari doj yi sama borom jox na ma ndigal ma këpp ko ci seen kaw mu ne ñoom ñii su ma amul ci ñoom yaakaar am naa yaakaar lu juddoo ci ñoom yaakaar jooju nga yaakaar dafay oyofal coono mbir mu nekk boo ci jiitalee yaakaar dootoo yëkkati coono ba waaye lépp loo dugg te fekk yaakaar nekkatul fa rek dafay yokk am sab coono waxna la sayyid muhammadul amin ak makkah makkah mom at mu jot mu aji at mu jot lu mu neew neew dana dem ñaar yoon ñaar yoon mom fakk mu dem ko makkah ci ak te bu demee fi mu gën a tàngee lay tànn fi mu gën a tàngee mooy lan mooy bu ñu demee ba ba dem arafa yàlla dogal ñu door këno gi wala ne jant bi sona léegi ubbi nañ baras bi ku bëgg a dem musdalifa mën ngaa dem moom mu nàmm ay tànkam du dugg oto mukk day dox rek bu ñëwee dox ba yegg musdalifa sànni jamratul aqaba bu ca bàyyi ko dugg tineel bi mook moom moo tineel bi mook tineel bi xam naa ñu may dégg ñi demoon Makka xam nañ ci dara ba dem kaabatal musarrafa def tawaaful ifaada su ko defee lu muy def bu door ko def fexee del bu ñëwee sànniwaat ñaari jamraam yi bu ko defee dooru ñib te xam nga diggante boo jëlee boo calculer diggante musdalifa li ko li ko boo jëlee diggante maanaam arafa ba ba ngay defee tawaaf bi boko calculer li ngay def tawaf bi ak sax bi lu mu new new néew ëpp na fukki kilomètre ak ñent ëpp na ko boo lu mu néew néew ba matul da nga yegg ci ñaar fukki kilomètre yu manki tuuti ño xam ne ci ño xam ne dañuy dox dox ba ci kanam ñi daal amna ci ño xam ne tank yi day mujj dagg am ci ño xam ne dañuy mujj reer waye mom daal tànn kenn ku bëgg ne naa ku bëgg dox and ak mom mu ne paré na ku parewuti moom fekk na mu ko dox kon moom musul tànn lu sedd ci dundam lu tàng rek musul tànn lu sedd ci dundam mais lu tàng rek mbir mu ne daal na mu gën a tàngee rek foofa foofa foofa foofa foofa moo ko gën a avancé kon Sidi Mouhamadul Amin tabaarakallaahu danaa ci dellusiwaat ci xam-xam boo seetee tey ba léegi conférence yi mu doon def yii mu ko daan defee ci foire bi yii mu defee ko ci Masaalikul Jinaan yii mu ko daan defee ci xadara bu sell ba leew na nga seet yii mu ko daan defee kucca yi conférence yooyu boo ci teg actuellement mën naa gàgganti jamono fi ñu toll bu jafe-jafe daal da ngay tànn benn rek ci waxtaan bi nga teg ko mu mel ni nit ñi tey la ko door a wax ñu waroon a wax lépp mu mën a jëriñ nit ci dundam sii di wax ko lépp lu war a jëriñ nit tamit ci loo xam ne bu ko liiree ci xam-xam jàng ko mën koo jariñ sii di bind la ko door kon nag moom wax dëgg yàlla wàccoon na ak ñun soo amee kilifa goo xam ne fépp foo war a teg sa tànk waxal na la ko ba nga dégg ko mu jàll bi ku bindil la boo ne ci arab ya nga mën koo liir boo mënee ci France nga mën ci France nga mën koo ci france français nga mën koo liir wax dëgg yàlla koo ko wàccoo nag askanam waaye sa dëgg dëgg tamit askan wi wàccoo nañu Sidi Mouhamadou Mbacké sopp nañ ko lool wallaahi bëgg nañ ko yàlla seede na ni tamit wóolu lañ ko wóolu goo xam ne am na tàmbali mais amul ab sopp yooyu tey ñoo nekk ci gannaaw gannaawal fajiri loo laaj ñu joxe ko loo santaane ñu def ko nañ taxawee woon tey ci gannaaw Seydi Mouhamadul Amin ba mu wanee gannaaw timit taxawaay boobu lañ gën a feddali taxaw ko ci gannaaw Cheikh Mouhamadul Hafiz ak ay raqam kon groupe fans wal fal fajri moo xam national moo xam international ñu ngi leen di sant seen taxawaay wax dëgg yàlla rafet waaye sant tamit groupe bi tabaarakallaahu seydi mouhamadul amin bàyyee ko bàyyee woon leen kër gi dooree ci Moustapha ak ñu koy jàppale dooree ci al oustaz Xasan Diouf ak ñu nekk ci gannaawam nit ñu koy lay dëgg yàlla tey boo ñëwoon di fi Sidi nekkoon nga miin kër gi ak gannaaw bi sii di wanee gannaaw nga ñëw fi dangay ngay yëg ne wal tey la gën a baax ci forme tey la gën a baax ci forme lépp tey la gën a tegu ci yoon te loolu lépp lu ko ko may àndandoor yu dëgg àndandoor yu gore àndandoor yoo xam ne wal fajiri moo leen gënal seen lépp am na ñoo xam ne dañ fi def émission ba pare jàllale bi ko fanaan fi def émission pare fanaan fi di xaar suba ñu defaat émission bu ñuy ñibbi ci bëccëg di door koo def loolu cofeel mënu koo paase te yaa ngi bàyyi sa kër bàyyi say soxna bàyyi sa lal li nekk nit liggéey fi natt bu nekk fekk na fi nit waaye képp koo xam ne dal na la fi tamit boo bàyyee ko ba natt ba jeex boo ñëwaatee keroog ngay gën a li sa liggéey ak sa commune ci loolu nag kon kenn amul seen fay yàlla yàlla fayal leen yàlla na yàlla taxawu leen yàlla na yàlla sàmm leen kër gi yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu tiim lu dul moom ba ku déglu dégg ko ku xool gis ko ku làmb daj ko mu nekk njariñ loo xam ne Sénégalais yi dañ koy jariñoo ba péncam yàlla ndax moom teeloon naa xamal askan wi ne leen Walfadjri seen alal la man Seydi Mouhamadou Amine moomu ndax li ko li ko ci dugal rek moo lay moo lay moo lay xamal siidi mooy kan xam nga lan moo ko dugal ci média dafa am ku bind ci moom kàddu yu bon yu ñaaw yoo xam ne dara du ko dëgg sidi mohamed mohamadul amin dem ba gisee ak moom ne ko waaw lu tax ngay bind lii mu ne ah ñun lii la jor rek mu ne ko naka ngay bindee lii te man mii nga xam ne man may may may borom bir mi laajoo mu ne ko non ni li ñuy liggéey mu ne kon man dana créer média bo xamé deug rek lay wax li mo ko dugal ci du wax lu nekkut mukk média bo xamné ne kat ye ya moy borom khalima ye ya kenn du leen njar ña yore micro yi ya di wax kenn du len njar ñu nekk ci image kenn du len jënd ndax yeen nañ ñoo gëna a seer xam nga kenn gën ta di ko xamé da nga dem di jaay sa ta alquran wala tastaru bi ayati lahi samanan qalila dema dema dem bakari bali bali gën la seex amna ño xamné say jaay nañ seen bopp sax beuy leen gëna ndax nit bo xasse jaay bopam même lu ko mënon na jaay bu doon ay million timit perte na bu doon ay million lay ndax lu dul jaay lu war sa jaay ku ko mo jënd ku ko jënd ci yow nga waye sidi mustan nangu kenn jënd ko dafa daan wax ji sa kum yabal nga dem jëli gàmm ba nga jëli siyaré wala nga jëli magal wala nga jëli lenen fo mëna dem jëli ki mu ne bu leen dara bu leen ko jël bu leen fa jël dara da ngay na xamné def ngeen li ngeen wara def rek fi ngeen taxaw dafa taxaw li arab bi daan wax ne ar raid la yakthibu ahlahu raid nak deug deug journaliste ko xamne bu poli beugé dem mangi, moy dem jitu, set fi am ñax mune fi am na ñax man ngeen indi seen nag yi mën ngeen indi seen jur yi kooka bu waxee fu am ñax déclaré ko te fekk ñax nekkul fa bu gaa yi jëlee dagg distance bu yegg dem yegg fa toroxal na la moo tax arab di wax ne arraidu laa yëkkati bu ëhlam ndax mbiram tas xibaar dafa nekk métier mu noble métier la moo xam ne métier mu yonantu yi la yonantu yi ñoo daan porter message bi di ko jox askan bi moo tax saa yu la yàlla defee nga nekk ko di yëngatu ci mbiram tas xibaar nga yëg nga yëg nga yëg nga ñàkk yëg yow yaa ngi yore métier ab yonentu yonentu ya nag ba yàlla joxee métier mi dafa leen sécuriser ci ñett ndax dafa ne seen métier mi laajut wax lu dul dëkk moo tax ab yonentu mënta wax mënta wax mënta wax lu dul dëgg lu mu wax rek dëgg moo tax kon ku war a métier foofu métier moom dëgg rek nga war a wax boo waxul dëgg rek tas yaakaaru askan wi yàqu lu bëri mu ne ñaareel bi tamit mu ne ab yonantu mënul wor lu mu métti métti yonantu bi da yonantu yëpp borom amaana la doon kon bis boo nekkee di yëngatu ci sama xibaar nekk koy xor rek rayu askan bi ci tegu timit ab yonentu li ko yàlla jox lu mu tàng-tàng lu mu métti métti même buy dal ci kawam du ko téye fokk mu jox yaayu rasulu balix muy tabliix amaana sitku dafa nekk ñetti jikko yi la yàlla sécurisé yonentu yi ba mu leen joxee message bi kon nag ku jël seen message boo koo jox askan wi da ngay fexe ba jikkoo ñetti jikko yi te loolu Seydi Mouhamadou Amine daan dénk njabootam mu ne la yonent yi boo leen seetee ñaari xaaj lañ dafa am xaaj boo xam ne yàlla dafa leen a jox message bi ne leen partagé leen ko lu ngeen ci nëbbu rek sama yar bi dal seen kaw ñooñu 313 la ñi ci des ñëpp nag dafa leen jox message bi ne leen buñ amu leen droit partage te leen ko def bu mu sell kooku mooy anbiyaaw yi ñeneen ñooy mursalu képp ku nag ku yàlla jël nga wàcc ci terrain bi di liggéey liggéey booba dugg nga ci wala xadd wassal naa la lakumul qawla loolu nag métier mu noobul la ko ku ci nekk fonkal sa bopp bàyyil xel askan wi lay déglu ndax ni ñu jàpp ne lu luñ dégg ci rajo dëgg la ndax dañoo jàpp ne segg nañ ko seggaat ko jàpp ne lu ñu gis ci télévision bi rek dëgg la jàpp ne lu ñu liir ci journaux yi rek dëgg la kon su boobaa ñi koy bind ak ñi koy wax war nañoo bàyyi xel ci seen bopp te xam ne amaana bu rëy lañ am ëllëg bu yow ma xel dañ leen koy laaj. da nga taxaw foog ne yaa ngi dem aljanna yaa ngi ne déedéet sama diggante yow leer na mais sa diggante population bi moo leer waqifuhum innahum mas'ulun te loolu kon jar naa bàyyi te gis nga euh, yow bu fekkee da nga yëngatu ci métier moomu di ca dugal lu ca bokk picc sax wala moo la tane ndax amna na picc moo xam sol na mbubbam journaliste muy hut hut ba yalla tuddee ko sa pourtant information bi indi indil yonantu yàlla Souleymane ne ko fekk na ben place bo xamne ben jigen mo len leen muy saba ta manam ñoo dañuy jaamu jant mu ne ko ndax li nga wax deug la mu ne ko waaw way dañ ko vérifier mu xol ko lepp nek deug lolu dem na ba jur yalla sulayman mu jidi denc soxla mu nek ab te kooku pourtant mbubb moom la soloon moo tax mu indi xibaar bi axattu bi maa lam toxit bi wa jiktuka min sabay bi naba in yaqin indi ko nam ko indee bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko vérifié lépp nekk dëgg kon nag xanaa boo mënta roy nit ku nite timit nga mën a roy am picc kon nag yooyu nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax yàlla nañu yàlla fayal Seydi Mouhamadul Amin Seydi Mouhamadul Amin dafa sigil daara ji bu liggéeyu toon dara sigil gin sigil daara ji rek doy na dara ji dañ leena xex ci côté bu ne japp nañ ne xamul dara ak luñu mëna a jàngal dana jàng alquran ba mokkal ko ñu ne xamoo dara te ki ne koy wax kat fermu ijji fermu ijji japp nañ ne tamit doomu dara war ta mën taxawal dara sidi muhammadul amin ñew weddi ñaar yépp ñëw bàyyeekoo ci daara ji fekk nga ne ci seen daara ja tabaarakallaahu jàngal leen te luñ xamut mu jàllal bi ko taxawal loo xamante ni ñu juddoo ci yeneen daara yi mënuñoo taxawal lu mel nii muy doxe nii yàggee nii jubee nii ñëpp di ci jariñ kon sagal na daara ji képp ku daara ñor rek ngay doomu soxna rek amel nga Seydi Mouhamadul Amin njukkal daara ji moom tegul leen fenn ben way mos naa ñëw ci serigne fàllu nitu yalla ku mag kooku ne ko ah serigne fàllu dal yeen am ngeen ci ci yalla bax lool waye dal da ngeen xam àdduna ko wax nga deug xam gi xam aduna tax nanguwuñ ko sóoru ñi baye ko yeen ko xam mu sonal le aduna ko xam do ko sóoru dang koy baye ni ko yàlla bindee rek waye bis boko ko rek mu toroxal ndax mom nanguna ku ko ku ko ngor nanguna jël may gu ñëk mais nangul jël may gu dëkk li ko sóori woon ñëpp torox nañ firawna sóori woon na àdduna fu mujj inna firawna ala fil ard wa jaala ahlaha shiyan fu mujj yaqdumu qawmahu yowma alqiyamati fa awradahum nnaara wa bisal wirdul mawrud namru sóori woon na ko taxaw ba ne man benn opposant laa dese ci kaw suuf mooy yàlla Ibrahima kuy sa borom mu ne ko yàlla yàlla moom moom lu man mu ne ko moom di yuhyi wa yumit mu ne ko annaa uhyi wa umit alam tara ila la fi xaaja Ibrahima fi rabbi naa taahu laahu lmulk id qaala Ibrahim rabbi la fi yuhyi wa yumit qaala annaa uhyi wa umit qaala ibrahimu fa inna laa yati bi shamsi min al mashriqi mais fati biha min al maghribi fa buhita alladi kafara fa mujj ma nga safara kon àdduna ku ko sóoru mu toroxal kenn mënu ci dara Seydi Mouhamadul Amin nag loolu la teeloon a xam mooy moom liggéey naa liggéey liggéey ba àdduna wuy si ko mu wan ko gannaaw ne ko taxoo maa moom laa gis mu takk ñaari garaat doxewut ko takk garaatu doomu soxna wëlliwu yàlla kaamul jur la ku toll ni maam xalifa Niass di sa tab wëlu yóbbu yàlla kaamil di Mawlaay Alxaaji Abdalaahi Ñas nga dund ba génn àdduna mosoo am bëkk nga nekk chef de entreprise taxawal lu mel nii du ma wax Sénégal mais Afrique sax que bu mel nii taxawal bu mel nii yàggee nii nii maandoo nii nit ñi di dund ba génn àdduna mosoo am garde corps garde sax rëy na mosoo am amoo sax safoor yaay dawalal sa bopp loolu yomb loolu yomb loola mooy wut àdduna ba téye ko sa loxo ne ko taxoo maa jug parce que nekk fii yaafus nanguwoo liggéey amoo dara di sol yére yu xotteeku di lekk soom ñu naan nga dama dëddu àdduna yow àdduna la ba am ko téye ko sa loxo ba pare nga ne ko man taxoo maa jug la dund ma tax Amin ku fuglu ci ku gëmoon dogalab yàlla la ku dal la ku fees tepp ak ngëm la loo ko indi lu mu rëy rëy rëy rek dafa koy oyofal ne lu yàlla nar kenn mën ta tax mu am lu yàlla nar kenn mënu koo fakk man lu yàlla dogal gërëm naa loolu daan dugg kon waxtaane gi ñu koy waxtaanee yàlla nañu yàlla dugal ci wax yonentu yàlla muhammad yim ne zikru saalihin kafaratun li ñu bàyyi ko fi bàkkaar yépp set yaram yépp set xéewal yépp yokk man-man yépp gën a yëkkati ko jëm ca kaw ñu nekk ci xat-xat ak jafe-jafe yépp yàlla jeexal ko buum yi leen tënk yàlla dagg ko ci barkeb Seydina Muhammad yàlla yàlla dëggal nu ci wax jural ji Sufyaan ibnu Uyayna wax عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات سن نتلك جاي يالا يباخ يالا يالا تاو تاو بيرمد تجامع يالا بلبن نكو دي صغل يرمد يالا يالا تاو كي من يرمد بلس مقل سيد بكوي تلب يالا من نكو عم نكو سن نكو يالا يالا سيدي محمد أمين بكوري محمد ونصر ريو مفاكين من نكو كريه دنكو ورا كريه هتو ndax njariñ la ci réew mi xéewal gu réy la ci askan bi yàlla na ko yàlla fayal yàlla yàlla sëmbërtal ci kawam niiru ngërmande yàlla yàlla sëmbërtal ci kawam tamit niiru yërmande waaye wàcc na ndax comme dund bon dee baax dee baax ba dee moo gën bon ba dee soo boree da nga dee ñu ne waaju de bon na ba dee rek waaw bu ñu dendalee kiñ ne dafa bon ba dee ak kiñ ne dafa baax ba dee ndax wax dëgg yàlla ki baax ba dee mooy ëpp garaat ki bon ba dee Seydi Mouhamadul Amin nag moom baax na ba dee rek te sax deewul ndax ñett yi nga xam ne ku génn àdduna bàyyi ko sa yëf a ngi dox comme nam daan doxee ba nga nekkee ci kaw suuf ñett yëpp yàlla jox yonent bi wax ni idha mata insanu in qataa amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah yonent bi nee na ko koo xam ne da nga génn àdduna bàyyi fi ñetti sa passion ñu lay fekk ci sa biir bàmmeel bi ci jëkk moy sarax buy daw sarax buy daw nak ndax bu toll ni won fa jiri bi yom na ci sarax buy dawal ñaata millions ñoo ñoo xam ne buñ xëyee lu wal fajiri mën a xam fi ñuy teg seen tànk ñaata millions ñoo ñoo xam ne bu ñu xëyee liir journal wal fajiri xam fi ñuy teg seen tànk ak ñi koy ñi koy wéttali ko ci yenn plateforme yi yooyu tey ay millions yi millions la te maanaam loo ca jëriñu mu fekk ko ci biir bàmmeel kon sadaqatu jaariya boobu doy na ñaareel bi tamit ñaata personnel ñoo nekk fii tey di fi liggéey di fi daanee seen wërsëg te lañ fay jëlee loola tey ay téeméeri téeméeri ñu ngi seen gannaaw yu leen ciy dund père de famille bo fekk rek amna ay famille ay ay ay njabot bu nek ci gannaaw kon tey ñooñu bo leen génne won ay junne junne junne junne lañ yo xamné tay ñi ngi jëriñu ci wal fajiri ba ñi jëriñ ci luy jëriñu ko ci wal fajiri kon lo lépp dugg na ci sadaqatul jari bi ci tege aw ilmu yuntafaaw ilmu foko fekk ci hadith yonantu bi wala da fekk ko ci alquran mu nek nakira rek mooy xam-xam budul xam-xam ak diine waye foko fekk buñ ko le rek xam-xamu diine rek la cey nangu da koy teunk fofa waye bu ñu ilmu rek di tinki ko mu nekk nakira xam-xam yépp duggu na tey ñaata ñoo jàngee ci wal fajr tay ba nekk ay cadre ñaata tay ñoo liggéey ci wal fajr tay ma nekk mbolem groupe de presse fi nekk mbir groupe organe fi nekk yépp ku fa dem fekk fa membre wal fajr waaw te nak du nekk ci como ya de ca seex ya lay bokk bu wal fa jëri taxawoon ne waaw yeen presse yi fi nekk yëpp ñi ma leen abaloon delloo leen ma ah nga doy waar lool ak ñi ci ubbi ñeneen ñi nga xam ne jaaree nañ ci moom ba ubbi seen seen organe bopp muy rajo mbaa muy ci télévision ak ñeneen ak ñeneen te lépp loolu lépp nekk luy jëriñ askan wi loolu lépp nag dafay nekk luy jëriñ dellu ci Sidi Mouhamadou Bamba ko def nañ ca jëriñu moom mi ko mi nga xam ne moo doon kosaan la jariñu ci te yàlla dafa baax kenn ku ci nekk sa payoor dana lu ci wàññi kooku mooy aw ilmun yuntafaw bi mu des nag aw waladun saalixu yad'u la mooy doom ju baax yoo xam ne dañoo nekk sa gannaaw di la ñaanal waaye ñii ñëpp doomu Seydi Muhammadul Amin la ñu lay déglu ñëpp ci juróomi continent yi ci àdduna bi tey wàccee ay kaamil ñi jàng ay yaasin ñi jàng salawaatu ala nabi ci siira buñ ko manee ñi jàng ay yaa latif ñi jàng laa ilaha illallah te maanaam mënu leen a jox seen lim bi am ñoo ëpp li ngeen jox ñooñu ñëpp jàpp nañ ne Sidi Mouhamadul Amin daal su fekkee mën nañoo jur ñun def nañ ko muy suñu bàyyi bu ñu mënta jur sax njëriñ gi mu njëriñal diina ji njëriñ ko askan wi rek def nañ ko muy suñu bàyyi kon moom ay doom la ay doom la yoo xam ne ñëpp dañoo baax di ko ñaanal waaye kenn mënta tudd Seydi Mouhamadul Amin te fàttaliku loo Palestine cay de xew Palestine bu fekkoon Seydi Mouhamadul Amin sénégal yu bari sax ñu ngi xamé Palestine ci ci ci Sidi Mouhamadou Amin mom dal fu problème amé lal diiné wala mu lal askan da fay melni moom moom combat mom jaral nako ko sax mu ne jaay leen manam xex jaral nako jënd combat bépp xex bo xamné bu ci duggé mu nekk luy jëriñ doom adam lay nit rek fu mëna dal jaral nako manam mu dugg ci xex ba xex wan ko diggante moom ak ndeysaanam al alim al alaama al ustaas alim alim badara ndaw nitu yàlla ku mag kooku biñ ko tëjee xoolal ma taxawaay ba mu ci def sonn ca ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen moom daal lépp lu teguwul ci yoon dana ci taxaw xeex ko ba ñëpp xam nañ li ciy àqam def na daana waxtu ni nañ bàyyi nopp gi mu ne doomi soxna yi waruñoo nopp buñ noppee rek ñu yàq ni ak maanaam wax ja lu mu ne mën a jural jihad la ndax yonentu moo ne man raa minkum munkaran bi yadihi fa in lam yastati fa bi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman yow nga su fekkee benn ngànnaay nga am mooy sa làmmeñ te maanaam nga jël sa ngànnaay ak làmmeñ denc ko te boo waxee mu luy askan Seydou Amin wax ne ah, nañ doomu yi ngir kon yooyu yëpp bu ñu koy fàttaliku xel daf koy fàttaliku waale yàlla na yàlla sëmbërtal niiru ngërmande ci kawam yal na yàlla sëmbërtal niiru yërmande ci kawam yàlla na yàlla bëriñ kemi Seydi Mouhamadul Amin ci réew mi yàlla na yàlla bëriñ kemi Seydi ci réew mi yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def Seydi Mouhamadul Amin xajul ci benn benn bëccëg ay jaar-jaaram xajul ci benn fan donte ci benn fan la génn àdduna ñu denc ko ci waaye moom ay jaar-jaaram xajul ci weer donte décembre bi ci la génnoon àdduna waaye ay jaar-jaaram sax xajul ci at jaar-jaaram dundam lépp buñ doon toog di waxtaan ay waxtaanam mën nañ ci wax ba jeex te du jeex waaye nag lu ñëpp xam loo ca wax doy na lu daal sëñ Saliou Mbacke daan wax mu ne lu ñëpp xam loo ci wax doy te Seydi Mouhamadou Amine moom lim ne ñëpp ko xam lu jub lu maandu lu tegu ci yoon fu mu gën a tàngee rek kon nag yaakaar naa liñ ci wax nii mu tuuti mu bëri nañ ko doy loo ko jéem koo roy rek jéem koo roy rek mooy li ci am solo waaye buñ ko jéem a toroy tamit duñ ca mën a jariñ ñun ñëpp nañ ji. waaw jaayeen jëf yéen ñi bàyyi xel seen biir di kaddu jolof TV euh, sangab TV tey ji ñoo ngi fii ci Walfadjri euh, nekk cinquième édition hommage bi ñu jagleel El Hadj Sidi Lamine Niass génnoon àdduna le 4 décembre 2018 ren di cinquième édition bi euh, war fi amaat li nga xam ne mooy cérémonie dédicace livre bi nga xam ne mujjee na ko def ci dundam ñu war ko dédicacé tey ci kanam tuuti mais laata foofu ñoo ngi jàkkaarlook benn confrère nekk fii ci Walfadjri ñu koy wax Serigne Gueye nekk journaliste euh, dañ koy bàyyi ak mu nuyoog waa Kaddu Jolof ak waa Sangap waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Ahmed maa ngi lay nuyu di nuyu waa Kaddu Jolof ak waa Sangap TV xaw ma Ahmed laay wax xaw ma DAT. DAT Kaddu Jolof waaw DAT Kaddu kon xam nga ne dama la xam moo tax ma jaar si Ahmed bi. mais di DAT moom ñi gën a xam ñoom loolu la ñuy gën a ràññee DAT Kaddu Jolof ñoo ngi lay nuyu di la ziare di ziare aussi ak nuyu ñi nga xam ne ñooñu seetaan yëpp euh, Kaddu Jolof ak Sangap. Sangap moo nekk ci ginnaaw wax na dëgg kon ni mu ko waxee bokk na ci. samay correcteur ki ma njëkk a téyel micro ma def test si rajo moom la euh, le 4 décembre 2018 si euh, fàttali fekk na la benn rajo bu ñu naan Pakala FM ba yaa defoon euh, édition spéciale ci génn àdduna Sidy Lamine ñas est-ce que mën nañu si delluwaatal. waaw le 4 décembre 2018 ni nga ko waxee noonu rek la demee mu ngi fekkoon Pakala FM di rajo communautaire bu bu ñu suivre bu baax a baax a baax ci Saloum fi mu ne boo nee Pakala FM ci Saloum ñu bëree bëri bëri xam nañu ko rajo boo xam ne ñu ngi koy suivre foofu la ñu fekkoon booba ñu nga fa nekk comme stagiaire waaye aussi comme reporter di tarbi yu métier mi ci domaine yu bëree bëree bëri moo xam ci reportage ci lu mu mënti nekk rek euh, ni nga ko waxee noonu rek la demee fa la ñu fekkoon muy suba teel gu tiis goo xamante ni man yéex naa yéeg sax lu xew damay dégg léeg-léeg ci suñu directeur Moustapha Diop di ko wax ne moom tamit yéex na yéeg sax lu xew parce que nettali na ko nettaliwaat ko waaye man tamit noonu looloo ma daloon boobu ndax xëy naa dem di ndékke fekk directeur rajo ba Omar Ndiaye ma koy saluer de passage booba moom génn na ndax moom it da doon am da doon occupé le de trop ci ëpp da doon occupé win mu génn bi mu génnee moom yëg na information bi mu woo ma fekk ma ci ndekkikaay bi man yéex naa taal sama connexion yéex naa xam lan moo xew ndax booba ku taaloon sa connexion rek danga xam lan moo xew ndax xibaar bi tax waaw si saa si euh, vraiment si woon na tasaaroo woon na waaye man yéex naa yegg foofu yëpp la ma woo ne ma yow yëgoo li xew ma ne ko lan moo xew mu ne ma yow yëgoo si Sidi dafa génn àdduna ma ne ko ngane ndékkale fa ma ko doon ndékkee noonu moom sax moo ma jox instruction ne ma bàyyi li ngay def lépp nga dem ci rajo ba nga def édition spéciale di fàttali ne moom tamit moom it production Sidi la ndax nekkoon na Walf Kaolack yaakaar naa li mu xam wala li mu mën ci journaliste lu bëree bëree bëree bëree ci journalisme ja euh, euh, di am na ci part bu rëy rëy rëy rëy am na ci part bu rëy rëy rëy ndax produit Walf la bi ma demee ma ñu def édition spéciale ba te yow gis nga la fa xewoon lépp ci édition spéciale ba. Euh, rajo bi comme ni ma la ko waxee ñu bëri lañ koy suivre moo tax ñu bëri tamit ni ñuy suivre Walfadjri ci lañ ko yëgee aussi mais aussi ci la ñu wootee indi seen témoignage. Mhm. loolu am euh, bañ fay ne tamit euh, léeg-léeg da nga daan waxtaan ci Sidi dañ ko dañ si daan waxtaan lu bëri bay méngale ne euh, États-Unis xibaar yi ñu amee foofu Walfadjri moom lañ koy amee da nga yàgg faj Walfadjri ba tax tey nga nekk ci wala jaar-jaar moom génn waaw Walfadjri Euh, oustaz Adi wax na ko sax yaa ngi koy dégg ci témoignage mu ne bu ne woon delloo leen ma samay journaliste yi ma formé sama bopp. yaakaar naa ne presse presse ñu fiy nekk fi mu ne ci réew mi ñu bëree bëree bëri dañu ñibbisi. loolu xam nga lan moo koy waral c'est parce que ñu am passion journalisme. Euh, nekk ci métier mi aussi di ko tarbiyu di ko di di di di ci taataan barket ñu ci bëri dañoo jaar ci loxo Sidi noonu la dalee ñëpp ba ci man mi ni ma dalee mooy formation journalisme def ci sa lépp jaar ci école di ko jàng mais aussi bëgg ko bëgg koo xamante ni te làmb bi bëgg xiiboon ub na ko bëgg googu nga bëgg ko par force da ngay bëgg Sidy Lamine Niass da nga koy reconnaître liggéey bi mu def ci ci ci presse moo tax danga koy bëgg bëgg googu nag moo tax ñu ko doon suivre di ko topp bon nañ ko top mom ci bopum parce que mëno top wala fu ta do top sidi mais liñ doon gëna top aussi bokku ci sidi ak presse bi liggéey bi loolu bokku na ci li taxone ñu ko doon top mo taxone ñu xam lu bëré wala ñu ragné lu bëré bëré bëré ci moom te sidi dafa doon ko xamanteni yalla da ko may may gi moy la nit yag na défar ku nekk ci loxom loolu ku ne mën nako ko yaakaar wala ñu bari mën nañ ko bok waye li gëna jafé moy nga ba défal ko xamanteni gisoko gisul la mu nekk fu sori te loolu la ko yàlla mayoon ci magie magie bi nga xamante ni moo nekk ci média loolu yàlla mayoon na ko ci ba muy defar ak di yokk nit ci xam-xam di ko yokk ci euh, mën-mën capacité euh, ak di ko yokk ci lu mën nekk te du gisee moom kooku du ko gis mu nekk fu sori mu nekk foo xamante ni ñoom ñaar gisee wuñ déggante wuñ wala su koy gis ci télé bi rek gis mooy li ma la wax noonu mooy jàngal bi nga xamante ni ni mbonaat di nàmpalee doomam di xool ko rek mu suur nit ki da daan xool Sidy rek jàngee ci moom rawatina ki nga xamante ni dafa am passion ci métier bi nga xamante ni ci la nekkoon muy journalisme ak tasum xibaar voilà. waaw ñu gis ne tamit say début nekk nga ko nekkul woon ku la ràññee carrément ci wàllum religion te gis nañ ne foofu fii moom ngay développé lan moo indi tradition bi. non transition boobu moom dañ lay jox mission rek tey ji mënoon naa xëy rek ñu yóbbu ma stade Abdoulaye Wade ma reporté euh, match wala ne mission la rek mission bu ñu lay jox la ne la yee eh, teel ñu lii nga cay jéem mission yooyu yëpp nag du looy mën ñu jox la ko nga def ko de dañ naa la kaay nga jàng ci. jàng lay doon Sidi daan détecteur de talent la woon day xool nit ne lii kii mën naa ko yóbbu fii fekk na amoo fa benn skills mooy compétence amoo fa dara. loo xam xamoo fa dara mais mu yóbbu la fa rek teg la fa nga dem di fa jàng loolu moo waral ñu jox ñu ay rubrique boo xam ne ci petit déj boo xam ne rubrique bu diine la buy touché ci diine muy miroir de l'islam ñu bëri nag jàpp ne oustaz nga yàlla bu ma sol compété bi nag ñu taxaw ci ne oustaz la fekk du ma oustaz fekk du ma oustaz mission la boo xam ne dañ la koy jox liggéeykat nag boo nekkee ci bërëb boo xam liggéey dëgg lañ fay def sax ay mission la ñuy joxe diw mission ngi nii diw mission ngi nii nga dem dóor mission ba jàll bu réussir euh, xayrun bu réussirul nga góorgóorluwaat ba beneen yoon buñ la ko joxaat mu réussir wala buñu la joxaat beneen mission nga réussir moo tax ñu ciy gën di góorgóorlu rek ba ñu bëri jàpp ne peut-être ay oustaz lañ fekk duñu ay oustaz waaye dañ fay jàng dañ fay jàng rek. Mm-hmm. Euh, ak li fi xew yëpp ci euh, ñaari at yi euh, Walf dund ci ay moment yu xaw a difficile. Mm-hmm. nga nekk si personnel bi naka ngeen dundee loolu. Mm-hmm. waaw bon. loolu nag lu lu lu lu métti la mais nag Walf noonu noonu la noonu la bindoo booy ñëw yàpp ne day neex mel ni am na télé yu nekk yoo xam ne gars yi naan te télé bële dafa neex am na ñoo xam ne naan la sax euh, télé réew mi euh, rien tous les soirs noonu la ko Siri doon tuddee nekk rien tous les soirs nekkoo rien tous les soirs mais Walfadjri nga nekk fii boo fi nekk da nga xam day métti. parce que jang mo mo mo mo mo andul ak dara neex mais nak jang mo xam nak dañ ci gagné nak dañ ci gagné sa dund dëgg yàlla ko qu'on puisse dir ñu ci gagné suñu dund moo tax buñu ñu bu ci moment yooyu non te muy moment yu difficile yo xamné kër gi dina ko traversé parfois muy coupé suñu signal ak yeneen yu mel li fi xaw yëpp gis ngeen ko yooyu day metti lool lool lool mais nak ba tay rek ci jang lay nek dañuy fekk ci jang jang moy fekkee naa bi Walfadjri dund lii dundu naa ko comme reporter comme journaliste bu nekk ci kër gi comme employé Walfadjri donc loolu loolu loolu jàng la jàng la waaye nag dinañu xamal tamit xamal ñu ne réew mi nekk dafa am nu muy doxe booy dox ci dëgg booy dox ci njub booy joxe la bon information am na lu la ci mën a fekk ci lu métti danga koy muñ nag loolu lépp jàngal nañu ko muy muñ bi mais jàngal ñu réew mi jàngal ñu lépp dana danañu wax ne ba nguuru Macky Sall ñëwee ba nekk ci par exemple dixième année wala onzième année jàpp année bay jeex jàpp nguur gay jeex ci deuxième mandat la ci xewoon lépp lu ci bëree bëree bëree bëri fekk nañu ñun ñu doon ci témoin loolu rek déjà euh, xam-xam la te nag gis nga ñu ngi liggéey réew mi de en tant que reporter am na au moins loo xam ne danañ koy apporter liggéey ko ci ci ci réew mi te loolu Walfadjri moo ñu ko may. Mhm. voilà. muy la am solo nekk Serigne Gueye journaliste yi ci Walfadjri eh, eh, doon def témoignage si li nga xam ne mooy El Hadj Sidi Lamine Niass tey ñu koy eh, ñaanal ci cinquième année bi ñu ngi wàcc cinquième anniversaire tamit kàddu jël. Euh, jóge si kaddu Jolof FM ba ñëw si kaddu Jolof TV nekk koo xam ne euh, fekkee na lépp commencement ba fu mu toll nii mun na ci wax lu bëri lan nga ñuy yokk ci kaddu Jolof TV ak euh, anniversaire bi ñu ñëw. bon slogan wu Walfadjri la voix des sans voix la. mais kaddu jolof it soo ko jëloon daanaka day dellu ci la la voix des sans voix la ndax jolof dafa nekk sans voix jolof dañ ko war taxaw jolof mooy lan mooy sénégal ku dafa war a taxawu sénégal da ngay seet ne benn la rek bo mengale ñaari mission yep benn la te slogan bu nekk rek dafa tingo mission donc yow ci mission boobu nga nekk ñu la ciy jaajëfal di la ci encourager aussi ndax nag aduna dara yombul loo gis rek liggéey la doo gis rek góorgóorlu waaye nag yàlla doo nga fi nekkit de yàlla doo léeg-léeg gis koo xamante ni mbége lay dawal mu dem ba jël ca pee ñu koy wane ci àdduna bi yëpp bu xeeboon dawalu mbege mën naa bañ a jël pee ci dawalu mbege waaye lépp loo nekk rek bu ko xeb boo ci jëlee pee rek ñëpp xam ne kii mu ngi liggéey moo tax liggéey rek a wóor góorgóorlu waaye aussi di ko teg ci dëgg di ko teg ci yoon jaarale ko ci yoon bañ di wax lu ñaaw bañ di wax lu bon wax dëgg nag ñu ba dañuy foog ne am na dëgg yoo xam day métti ba da nga naan day day wax lu bon waaye fekk du noonu waxal lu baax wax dëgg ak dëgg jëlum diis diis diis diis diis bu nit nit ñi ñooy dem ba xam ni kii lim doon wax dëgg la te loolu mooy seede yi njox ci Sidi Lamine Niass rek ñu bëri comprendre luñ ko ko woon parce que dëgg ji fi mu nekk fi lu dul moom am intérêt fi mu nekkee waaye la doon wax nag ñu koy commencé gis ñu xam ne dëgg rek la doon wax dëgg ji da doon métti rek da doon diis da doon tàng waaye dëgg rek la ñu doon wax moo tax loolu lañ lay wax yi tamit ci kàddu Jolof euh, say début yu bëri fekk fekkee nañu ko ci euh, vraiment di koo xamante ni bëgg nga ko dama ci nattali loo xam ni rek keroog ba ngay ñëw euh, fële waaw ba ngay ñëw euh, Pakal FM keroog Omar dafa ma woo ma ñëw mënuma dafa am benn xale bu góor benn booy bu fi ñëw ma ne ko ah, mu ne ma dafa bëgg dafa bëgg def stage ci animation rap ma ne ko ah, mu ne waaw foog naa da nga ñëw demaat bi nga ñëwaatee mu ma léegi kook ñëwaat na kaay ma ñëw mu ma demal nga wax ak moom ma ñëw waxtaan ak yow waxtaan rek lañ def ma xam ne yow da nga bëgg te yàgg lu lu xiiboon ak xiiboon ak xiiboon waaye bëgg gi rek dana tax nga wub làmb ja moo tax lépp lu nit di def na ko bëgg na ko bëgg bëgg dëgg loolu tamit day dellu ba ci Sidi Lamine Niass mi li ma doon def da koo bëgg ci xolam ñi ko doon def la it bëgg ko ci seen xol ba fi mu ne looloo fi nekk ñu gis ay nit ñoo xam ne xam ne ñi koo bëgg dañ bëgg dëgg dëgg dëgg xam ne sax yeneen yeneen télé wala yeneen rajo ñoo lay woo proposé la xaalis bu bëree bëree bëri mais bëgg gi nga bëgg da nga naan li may liggéey ak ni ma ko bëggee fii laa ko mën a amee waaye du fële loolu nag mooy mooy lu ama am solo moo tax ba ma ko Omar waxee ma ne ko kii da ko bëgg kii ku ko jàppale dana dem parce que gis nga nit ki lu mu bëgg mën na ci dépenser temps am mën na si dépenser doolem mën na si sax dépenser ñaqam mën na si dépenser sax deretam nit ki li mu bëgg te loolu nag bu ci yeggee bu nit bu ci nit ko yeggee rek da koy mën lépp lu nit yàlla jéem lépp lu nit jéem yàlla jàppale la ci moo tax moo tax ñu lay encouragé bu baax a baax a baax di la félicité aussi ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy def. জায়গায় xàmmee nañ ko ci mbay mi muy kaasal baykat yi léegi yow naka nga gisee tamit euh, mbay mbéyam léegi nii yéen. yow est-ce que baykat nga ba pare. waaw nekk naa ko nag. mais nekkoon naa ko waaw <laughs> dafa jot. si ah. laaj bi nga laaj. Ah. képp ku nekk fi nga xam ne am nga parent. Ah. muy baykat wala sax nga nekk nit boo xam ne xam nga ne mbay war na jëmale kanam. ñu jox cër mbay mi. loolu maa ngi koy commencé ci képp koo xam ne doomu aadama nga commencé ko ci média yi commencé ko ci homme politique yi ñu am kàddu moo xam loo mën doon. société civile comme li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, jaaykat yi nekk yëpp ñu leen di woowee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy am kàddu ci côté kilifa diine yi ci côté bépp bu mën a doon donc opposant la bëggoon wax comme pouvoir société civile comme activiste donc bu ci nekk ñu ànd wax ndax mbay tamunaa gena moo waral xale yi di xuus di dem ci gaal gi ñëpp a ngi dee moo waral xale yi tey yor marchandise yoo xam ne matul 5000 francs li tax mooy état wu Sénégal mu ngi tudd ay milliards di wax ne ci ñun la jëm si te ñun yegg si ci ñun parce que gisuñu ko waaye dañoo wéet ci xeex bi kenn jàppale ñu ci réew mi daal dafa mel ni ba waxul pétrole waxoo impôt waxoo surcon waxoo lenn loo xam ne dafay niroo courant wala loo xam ne business dafa xaw a nin da ngay wét ca xeex boobu boobule ñun nag ñoo préféré comme doomu baykat lañu màgg ci ñu xam na mbay ak sàmm dafa bokk ci ëpp doole ci réew mi tam woo koŋ baykat naqare jàppale ñun fa la ñuy visé waaye nag ñu ngi ci woote ndimbal ndax metti na fii ñuy wax ak yow état au Sénégal mu ngi génne benn prix muy ñeent fukki juróom fukki dërëm ak juróom benn tey boo demee ci luuma yi ëpp fa la ñuy jaayee parce que seko yi ubbiwul luuma yooyu yëpp gaa ñi wàcce nañ seen prix yi parce que opérateur yi nee nañ amuñu xaalis bu ñu jëndee gerte carte bi Sonacos bi nga xam ne mooy huilier bi leen waroon a lebal xaalis jox leen avance sur facture ñoom ñëpp nee na soxla maanaam wóoluwuñ ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur yi tan moo fi des mooy ñi nga xam ne ñoo waroon exporter tëj nañ frontières yi kon benn baana baana ñëmut a jënd gerte bi parce que xamuñu fu ñu koy jaayee jee jafe-jafe bii lañ am moo tax ñëpp ngi commencé di mbappat seen gerte ñi nga am ay problème donc loolu moo tax nag ak suñ moomeel lancé benn défi wala lancé benn marche koo na ne baykat nga nga bàyyi li nga yor ci Dakar bàyyi ko Touba bàyyi ko feneen ñu dem fees dell Kaolack gële nga xam ne foo la ñu wax ne moom mooy bassin arachidier maanaam mooy capitalu mbayukaayu gerte bi mooy le 18 ci weer bii ñu nekk di décembre incha allah. incha allah waaw jaajëfal bu baax a baax nekkoon ki nga xamante ne moom lañ koy doon am comme interview. nañ si li nga nga xamante ni moom mooy euh, mbay mi nga xam ne lay jaajëfal maa ngi leen di gërëm bu baax du wax ne ndaanaan du dem parce que jëf day des te royukaay la na ñëpp ànd xool kippi la mu doon def malgré malgré xeer yi bëri woon na wax ji bëri woon na waaye bés bu ci nekk discours am ku ko teg mu doxal li ci kanam li mu waxoon programme la ci àdduna kon képp ku bëgg réew mi dox demal nga wàccuwaat ak chifu Sidi Alaaji Sidi Lamine Niass ñu jàngat ci pour suñu ndaw waaye pour suñu koom pour suñu ëllëg ñu ngi leen di gërëm bu baax. yaa ngeen jëf teewati ci bërëb bi nga xamante ni mooy Walfadjri sànq ni ñu ko waxee woon ci président bi nga xamante ni leen doon dalal euh, ci ki nga xamante ni mooy Mouhamed Lamine Diawara waaye nag ki nga xamante ni moom la ñu jàkkaarloo yaakaar naa ne dootuñu ko présenté Sénégal mooy ki nga xamante ni mooy euh, borom solution waaw Assane Misra ah Assane Misra borom solution moom la ñu taxawal tey euh, ñi fas yéene waxtaan leen rek ci jëmm jooju nga xamante ni mooy Seydi Mouhamadou Lamine Niass ci nekkinam ci réew mi ak ginnaaw bi nga xamante ni na fi yàlla def nag muy liggéey ci bërëbam moom nga xamante Assane Missiré Assane Missiré ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay bu baax a baax. Mhm. di am mbégte contentement bu rëy. Mhm. si euh, teewaay bi ak taxawaay bi. Mhm. ndax lii day lu rëy loo xamante ni. Euh, mbégteem senegal la waye mbégteem Afrique la waye it mbégteem jullit yi la mhm. ndax ku demene sunu baye sunu serigne mhm. di Alaaji Sidi Lamine Niass mhm. bi mu fi nekké di liggéey liggéey bu rëy euh, euh, senegal yi xaj bi xamuñu ko woon ànduñu won ak mom deug la man mi di wax ak yow benn laaj ndaysan ndax suñu daan wax dama naan ah sa waye de nangam nangam ndax bobu gis amana benen gis-gis bu bokkutoon nak gis-gisam ndaysan man nag bokkuma ñi nga xamanteni nii dañoo bàyyi ba mu fi rek ñu ñew naan Sidi bama ma ak mom ak bama waxé ni nii ak keroog ba maye feek man loolu dawuma ko damaa taxawaan ne opposé wu ko ndeysaan dëgg la dëgg rek laay wax ndeysaan dëgg mais bi yàlla dogalee mu jóge fi mhm. dafa mel ne dafa ñëwaat mhm. pour defar ñu ginnaaw bi mu fi jógee lañu la kerewaat ñi yeneen ndaw mhm. defaraat leen ba ñuy defaree ndeysaan bàyyi fi it ñoo xamante ni defar na leen ba ñuy defaree ndax dafa am ñu bëri ñoo xamante ni bu ñuy roy si moom wala bu ñuy bu ñuy waxtaanee yow di la wax ni la bi ma nekk ak siidi bi ma siidi nee nii bi ma siidi nee da ngay dem ba xam ne kii nitug wëlóor la woon waaye nitug diine la woon waaye nit amoon pas-pas ak bëgg-bëgg la woon ndax ñun fréquenté wuñ ko xamuñu ko woon lu dul di ko seetaan comme ni ñu ko ñëpp di seetaane kooku nag bu fekkee ni fans club bi man ndax man fans club bi laay wax ndax man lu xew fans club bi laay gis mhm. te man fans club bi laa bokk ndax man auditeur laa mhm. lépp laa ab dongab daara laa jóge sa kaw ga ñëw ñëw nekk ak yéen macha allah kon nag lépp loo xamante ni sumb nañ ko ñun fans club bi nga xamante ni ñooy diglu rajo bi ak télé bi ak lépp lu fi di bàyyi mhm. buñ organiser lu mel taxawal ko dajale seen i def ko ci ngir delloo ko njukkal ci di Lamine ñass waye ñaanal ko digganteem ak suñu borom mhm. loolu ñaan gogu yépp ak jëf ji suñu borom dana leen ko delloo ndax lu baax la ndax jëf ju baax mom bangut balu taxi la sa boko ko day dellu ci waat ci ginaaw mhm. kon nak ñi ngi sante fan ci club bi yépp mhm. di sante kilifa kër gi suñu borom gën ko dëgëral te guddal fanam ak ñëpp ñu fi liggéeyee waye naka noonu di gërëm sa njoogu mi nga xamanteni suñu buntu ci lépp rek mom la kon sa njoogu ñu ngi ko ñaanal mu yagg fi lool te wër mok soxhi bu ak ñi amé initiative bi yépp waye di gërëm site internet yi nga xamanteni gis nga ko tay ji ñi ngi am seen ay yitte jóge ñi ngi am leneen lu ñu mën a def mhm. mais dañu ni bis bi kat lépp lu ñu mën a def pour wane ko ñi nga xamante ni ñëwuñu mhm. danañ ko def taxaw fii képp ku ñëw ñu ne la lii xew ni lan moo ci sa xalaat ban gis-gis nga ko amee mhm. te ñoom ñu yor site internet yi ñiy laaj ñëpp kenn ku nekk mën naa taxaw wax loo xamante si Alaaji Sidy Lamine Niass du deñ kon ñu ngi di gërëm bu baax a baax di wax ni lépp lu ngeen fi def yàlla na ko yàlla def seen téere jëf ci barke a kontaan lool ci yow di kontaan lool aussi sa sa caméraman yi mhm. di la wax ni tey moom bés la boo xamante ni bés la ci biir bés yi mhm. ndaxte tey bu dellu see le 4 suñu xel bi dafay dem ci talaata boobu nga xamante ni si la génn àdduna man tey ji rek rajo yu bëri woon nañ ma di ma laaj nan nga ko yëgee laa tëdd di nelaw mhm. sama dëkkandoo fëgg ba Ousmane jógal yaa ngi nelaw rek ma ne lu xew mun xanaa yëgoon ne Sidy Lamine gaañu na mu nekk loo xamante ni ni choc bu rëy la ci man keroog génn naa ba sama kër dox naa lu yàgg xaw ma ne sax man maa ngi dox parce que je ne comprenais pas xamoon nañ ni feebar na xam nañ ñu ngi doon dégg ni feebar na ndax moom chaque jour dafa daan ñëw wal fajiri mhm. waaye fan yooyu yëpp ñëwul mhm. lu toll ay fukki fan jëm ñaar fukki fan doo ko fi gis ñu ni nag wax dëgg dafa dégg naa wérul mhm. mais ñun xalaatuñu woon ak ak ndee dina moom mooy buur moom bu namoo doomu aadama non non non ñun xalaat mosuñu xalaat ni Sidy Lamine bañ la ko bañ la ko bañ la ko woowee wax la ba ma soxee parce que xalaatuñu woon ne dafay dafay jaaree dem quoi ñun jàppoon nañ ne rek feebar na am na certes feebar bu muy traîner mais xamuñu sax feebar bi noonu mhm. ñu si kaw rek ñoo ko doon wax après affaire di seet bay ñëw ci ñun ñu ne ah, booy dégg nañ paa bi dafa feebar de paa bi dafa tëdd feebar loolu rek lañ ci amoon mhm. donc xamuñu ban façon feebar ko dal xamuñu lan la feebaree xamuñu lépp lépp lépp après ba mu génnee àdduna sax si la détails yi di ñëw ni ko fans yi di yégee ñun noonu lañ ko doon yégee ndax fii kër la goo xam ne dafa bëri sutura yu bëri bëri duñ ko divulgué te moom kilifa la aussi pas la ñu koy wax ci kaw mais bés boobu nekk na bés bu rëy ci man bés bu metti metti metti ci man ba may dugg si fii tey fekk ñoom caba ñoom ramatulay saar ñoom béti mbuur ñëpp di daan si suuf ñi di jooy nga gis kanam nekk nag bés boo xamante ni ilaa ko fàtteeti mais nag naan alhamdulilahi rabil ba mu amee léegi am na juróomi at te teewul ba muy soog a am ñu bëri dañ doon wax Walfadjri jeex na wal fajri mom sayee di sax nee dafa bëgg jënd wal fajri wal fajri dama moom daanu wal fajri ay fu wal fajri jëm te teewul sha allah depuis mu joggé ak légui domam nga xamante moy mooy Cheikh Niass mu ñëwee ak légui ñun ñi nga xamante ñu ngi nekk wal fajri ñu dara Cheikh Niass amna tay lo loo mi nga fi def ci wal fajri Cheikh Niass bëggul sax nit di fi dugg di fi génné di ñibi te amu fi dara Cheikh Niass bu doon sagum képp ko fi dugg di fi ñëw muy wala ngay gont wala nga fi fanaan di liggéey boy ñibi nga am dara lo yobbu sa biir kër mu nekk nak ko xamante momit dama ni dafa relever défi bi tey bu Lamine delu ci won du ni ko Cheikh defaratal sa toogaay gis nga wal fajiri namu melone ba fi sidi di ne ak ni wal fajiri mel tay kon dañ nan alhamdullilah rabbil alamin sant nañ bu baakha a baax di ñaanal nak sunu PDG sunu prési kon ñun ñu ko daan wax ñun prési lañ ko daan wax yàlla nako yàlla xare ci àjjana yi firdaw si baye sidi Lamine mom Sénégal do ko fat yàlla nako yàlla yeeram te yéexañu donay mam Khalifa donay mam Abdallah naari Aminata aidara bi si rafaawul bi sëb sayidina muhammad bi baye salma ñu salma baye cheikh xaafis nes borom wal fajiri borom société bi ci bir jumaa bu jëm jumaa ci biir société bi maa ko ci yokk fan yi boobu bëgg ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla fi pexe waaw naka nga gisee affaire bi nag tey nii ak chaque année nga xamante ne nii ñu ngi koy organiser te yow nga nekk si wàllu Facebook bi ak naka nga wagi waaw lu ma ko gisee rek mooy tànku yàlla moo amul ginnaaw boo xoolee mbirum Sidi Lamine nga xam ne jëf liggéeyal yàlla rek am solo Sidi lebal na askan bi waaye askan bi fay nañ ko ba ñu ngi koy wis Sidi Lamine la mu lebal askan bi rek moom la ko askan bi fay moo tax boo liggéey liggéeyal gannaaw li boo liggéeyal léegi te yàlla tax liggéeyal te yàlla yónente ba rek tax boo liggéeyalee sa askan boo fi jógee woy sax sa askan dañ lay taxaw dañ lay fay Sidi Lamine loolu lañ ko fay boo xoolee tey askan bi ni ñu teewoo nga xam ne Sidi Lamine ñu ngi koy fay borom ñu ngi jéem fay borom xam ne mënuñu ko fay waaye ñu ngi fay borom incha allah. waaw nga gisee tamit taxawaay bi nga xamante ne ni amoon na ko société bi bi mu déddoog léegi léegi fu mu toll nii saa boo rek xew amara rek ñu ne ana Sidy bu fi Sidy nekkoon kenn du mom dañuy wax l'islam mom dafa ne l'islam du soppeku ba mukk waye fu mu toll day ak jamono waaye jëfu Sidi Lamine ak waxu Sidi Lamine du soppeku ba mukk waye sa jamono yëngoo mu ak jamono kon xana Sidi moy kalimatul haqq kalimatul haqq ci mom la yam lamu doon def muy deug rek moy moy li waaw loolu la. yow sa taxaway ci Facebook bi la nak la la waaw man euh, président Bathie Massamba mo créé groupe wal fadil sur Facebook man ne ma ya-, man ne ma ne ci sen yaay waaw. Euh, ma ci gëna ndaw sax parce que bàcc ma sàmba mom États-Unis la nek mais lépp lu ñuy def dañ nan mama jogol nga dem defal ñu maa leen defal maa leen di waxal bu joxe mbirum copar man lañ ko lépp lu ñuy lijjanti ci euh, fans club rek man ci sama loxo lañ koy teg ma maa li doxal ma ci lool la nek ci fans mama maman ya ñu ngi lay nuyu di ziar di la gërëm di la sant ba ba tant cant ak ñeel na leen di ñaanal ñëpp ku yalla ngeen yok ci barki sayyidina muhammad di ngeen tank yi ngeen ki ba yegg fi yalla nako yalla def yiw ci barke yonent bi yalla fay ñëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziar nañ ñëpp tey ñaanal ñëpp jàmm yàlla bu ko kenn manqué déwén ndax tey bu ne day gàcceel démba moom Sidi Alamin Niass ren gis ngeen ni mel te bu déwénee day dàq te mbirum kanam la jëm nuyu nañ ñëpp ziar nañ ñëpp waa kay jërëjëf macha allah Ahmadou Lamine Niass euh, lii waral nag sunu teewaay mooy jógee gi nga xamante ni jógee na fa bi ginnaaw bi fi jógee ci atum le 4 décembre mbokk yi nga xamante ni wala sopp yi nga xamante ni moom rek lañu sopp moom rek ye ci seen ruuxu moom Seydi Lamine Niass ginnaaw bi nga xamante ni moom la fi jógee nag la ko fi daje lolo ko fàttaliku looloo waral tey nag ñi daje ki nga xamante ni nag mooy président euh, groupe Lamine Diawara président euh, groupe Soppey Walfadjri Lamine ñoo ngi lay nuyu di la ziar di le talal sunu micro nii nga fas yéene wax ci bis waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen waa internet nga xam ne Daaru TV ak waa Sangap TV ak euh, bépp média boo xam ne teew na ci bis bi mm-hmm. jëmm jooju nga tudd nag muy Sidi Mamadou Amine Niass mm-hmm. fans club Walfadjri man la yàlla dogal ma nekk ci bopp bi mhm. waaye lu jiitu loolu am nañu ko jiite woon dëgg la waaye dina wax ne kooku daal mhm. sénégalais bu nekk mhm. war naa xool boppam si Sidy Lamine Niass dëgg la sénégalais bu nekk war naa gis boppam si Sidy Lamine Niass dëgg la ndax li taxaw la te loolu neex naa expliqué la lu yomb la ndax ku xool seexu sëriñ bi mu fi ñëwee àdduna yëpp la si yaakaar loolu waaye ba pënd xam nañu ne dëgg rek day dëgg dëgg la ñëpp mujj nañ ko nangul si loolu mhm. tey si tey jii mhm. bu ñu tegoon tey li nga xam ne moom la fi wax rek mhm. du soxla nga may inter jël interview wallaay nga xam ne waxoon na ko kon nag jëmu ji mel noonu suñu nga xam ne nañ ko démb dañu am mbégte ñi nga xam ne ñoo ko ëmpale woon démb nag euh, moo tax ma ne dañu am mbégte li tax dëgg la ñun ñi ko xamoon xamoon nañ ki mu doon wallahi mooy ñi ko ëmpale woon te xamuñ ko bu waxee ñi di ko saaga ñi di ko wax naka sudul noonu ñooñu ne tay ñoom bëggal ko seen bop mhm. te gisunu ko mhm. lolu mo tax ñu am mbégte ñun mhm. way ñun ñi nga xamne nak nag bëggoon nañ ko xamoon ko bien avant tay bi ci tay bi mbégte na ci ñun ndax Cheikh al Islam dafa wax ne bo gëmé yalla dëgg-dëgg mo ba ñëwé da ngay ree lan mo sabab euh groupe soppee la Lamine Niass fans club bi lu ko sabab moy dañ ko gis mu nekk ben melokan ñu diko top diko top ba 2003 ci lañu ñu ne waaw ki nak comme ñun ñu ngi dajé def ay tour booba li may wax ni kutia mu ngi fi won deug la DJ yu train ak tram ñoom Madi Gueye dëgg la alaaji Cheikh Ndaw lancé président mhm. ñu di ko topp mhm. ànd ak moom ànd ak moom mhm. mu di ñu récité nag pour dire vrai ndeysaan bu ñu ñëwaan rek mu mu xaw ñu néewal quoi bu ñu waxee mu ne non li may bañ mooy position yi may jël nit ñi foog na dafa am groupe bu nekk ci sama gannaaw moo tax ma di ko jël dëgg la ndeysaan looloo taxoon muy rikki la ba 19 mars bi nga xam ne moom lañ doon organisé 19 euh, mars 2019 bi Ablaye Wade di sonal Walfadjri moo organisé bis boo xam ne moom la ñuy wax 19 mars. Mhm. bi ñu demee ñu dajee ñun fële ci Parcelles Assainies yi. Mhm. def fa suñu waxtaan. Mhm. mais comme dañ koo bëgg. nañu xool nan la def. pour jàppale ko ci bis boobu mu réussir. yàlla mi dara tëwut. am ñu ñëw féetéré ñu. boobu ministre Ousmane Ngom. ak Habib Sy ñoo nekkoon ministre l'intérieur. jamono jooju. ci ñi ñu xam. ci la ñu féetéré ñeen ne ñun dañu bëgg coup ànd ak Sidy Lamine pour coup d'état pouvoir bi fi nekkoon. Ah. muy muy muy Abdoulaye Wade. Uh-huh. après ñu fa jógee jàpp ki ñuy wax Cheikh Ndaw mhm. jàpp ki ñuy wax Malé Diakhaté mhm. jàpp ki ñuy wax Mor Kassé mhm. yóbbu leen police quatrième ñu def fa presque une semaine après ñu doog leen a bàyyi si le sud Lamine nag taxaw ne ah comme que bu ñu ba état su ma soxlaa mënul a jàpp ñan lay jàpp mooy fans yi kon yelloo na tey ma delloo fans boobu seen cër macha allah si la jël si ñun nag yóbbu ñu màkk takkal si ñun soxna yóbbu si ñun ñaari nit màkk dem ba mujj gi bu ñu ñëw si kër gi bu ñu séenee moom mooy accueillir ñu tàllal ñu ay loxoom yu tedd yu sell yooyu lu muy def boole boole ñu ci mhm. lu muy def wax ñu ko mhm. nag loolu lañ ko toppee est ce que euh, yéen yéen a ngi xam conséquence yi nga xamante ni euh, bi nga xamante ni créé ngeen loolu ak conséquence bi leen ci dal ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi bëgg adhéré wu ci groupe bi yéen a ngi leen di nandal li nga xamante ni moom moo leen ci nar a waaw mhm. euh, wax nañ leen ko te xam nañu ko moo waral man mi bi ma ci bopp béeg léegi ren moo war nekk quatre ans su ma juuma waaye bi ma toogee def mooy fexe dajale fan si yëpp ñu am këyit dëgg la dëgg am nañu koy récépissé boo xam ne reconnu par l'état du Sénégal Sénégal waaye tamit ci ndigalu DC Mohamed Afis Niass mi nga xam ne mooy doomu Sidi Mouhamadul Amin Niass donc ci loolu la am këyit nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw di rejoindre fans bi it danañu la wax na la nii la doxee mhm. nii la taxawee mhm. soo ko nangoo tënk ko mhm. jëriñ journaliste bu fii xëy ñu di ko défendre. ñu mhm. itam noonu lañ lay défendre. Mhm. macha allah liggéey bi nan lay doxee ci entre yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir liggéey bi mu seq leen yéen ñëpp ak euh, programme bi ngeen doxalee. yow mi ci bokk tey. Mhm. ak ki fi bokk suba yéen a ne képp yam. góor mille francs la. jigéen téeméer chaque fin du mois. fi rek ñooy boole seen buy. seen daqaar. di ko def ba at bi jot. ñëw sargal si moom Abdou Lamine Niass waaye nag bu bis bi jotee mhm. dañuy lancé benn tour rek ne dañuy jaayante tey pour wàccaay si Lamine Niass dëgg la da gis ko xam ne danaan lu fi diwlin maa koy joxe allahu akbar gis ko leen lu fi ceeb maa koy joxe gis mhm. si noonu la jaayante waaye laguñ banque jamuñ mhm. feneen suñu biir rek lañ ko lijjanti macha allah lan ngay tàggatoo ak lan ngay soññee ñi nga xamante ni ñoo ngi ci groupe bi gërëm leen sant leen bu ngeen ñëwee si bisu ci war a njëkk a jàngee loolu laa leen di dénk ko gis si yéen mhm. bu ngeen waxtee ne Sidi baax mhm. ba nit ñi gëm leen mhm. su ko ngeen Sidi bon na moom yàlla ko woon loolu yàlla daf ko defaloon ba mu ne baax ba tey newut bon na waaye lu mu doon allah allah allah kon ñoo ngi ak suñu a waaw sant yàlla bu baax eh, julli ci yonent bi ñëw di feddali kóllëre kóllëre ak Sidi Lamine parce que Sidi Lamine livre bii nga xam ne daf ko bind bàyyi ko fi dafa nekk livre boo xam ni dafay wone taxawaayu Sidi Lamine mu mel ne tey jii la bind livre bi mu mel ni Sidi Lamine li ñuy dund tey ci Sénégal ak métti yu ñu nekkee dafa mel ni Sidi Lamine daf ko dund ba pare ànd ko ak ñun loolu nak moy Sidi Lamine waxna len legui ni len Sidi Lamine periode bu nek ak waxtu wo xamé ni ñu ngi euh, jankonté ben jafé jafé suñu xel day dem ci Sidi Lamine ñi nga xamni japp nañ len tejj len ci kasso bi bu fi Sidi Lamine nekkon dina ci wax dina ci dox ay jéego dina ci wut Problem problème yi nga xamni ñu ngi koy tek Ousmane Sonko su fi Sidi Lamine nekkon dina ci wax dina ci dox ay jéego dina ko digal loolu motax domam jubah ju baax ji nga xamni mu ngi continuer kóllëre gi xam li ñu seqoon ak bàyyam téye ñu jàpp ñu di dundal héritage yu bàyyam moom ñi mu àndal ñu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla mais aussi euh, di gën a feddali kóllëreem ak Ousmane mi nga xam ne moom la bokkal jamono te mu bindal ko ko léegi ci dédicace bi wax ni jàmbaaru Ousmane ak taxawaayam ci bàyyam rek la koy xool ndax xam na ni Ousmane am na diggante moom ak papaam. xanaa ni ko mu Sidi Lamine na ko mais mu continuer di ko inspiré xam ne nag comme ni ko ñu bari waxee bala muy neex day metti te dina neex te dina baax. kaaloog ak Mamadou Aw nekk responsable politique parti bi di euh, République des Valeurs Thierno Alassane Sall teew fii ci dédicace livre euh, Seydi Lamine Niass ñu bàyyi ko mu nuyoo waa kàddu jot waa Senghor TV waaw maa ngi lay fay maa ngi kontaan aussi ci interview bi Mohamed di wax ne tey dañ fi ñëw ci le président Thierno Alassane Sall euh, dafa ci tukki euh, mais cérémonie yu occasion la pour rendre hommage à ñu melni Sidi Lamine démocratie Sénégal Sidi Lamine daf ci am Sidi Lamine dafa am na am fit wax li nga xalaat waaye li nga dëggu na ci nekk na ci constat mu am jikko yooyu mu ndóoro ci lool ak président Thierno Alassane Sall président Sidy Lamine da toog di wax ne moom dañ koy woo di ko wax ne yow président faro fenn mu naan alhamdulilah donte nee nañ ma faruma fenn donc ça veut dire que tëddee naa njaaxaanaay samay wax xëj na tey nit ñi du leen neex waaye suba dinañ xam ne dëgg laa doon wax mu ndóoro ci lool ak le président Thierno Alassane Sall su waxee tey dina am ñu mu neexul waaye ëllëg dinañ gis ne loolu moo waxoon mooy dëgg donc président présidentielle lamine dafa wone yoon bu ñu bëggé réew mi jag faaw ñuy waxati dëgg faaw ñun ñu bëgg suñu réew te bëgg su réew tambalé na ci wax ak nit ñi nga nekk dëgg nekk nak ci yoon ci siratal mustaqim té vraiment lool mo nekkon tanki té ñu contanon vraiment di ñëw ci dédicace bi di ñëw ci livre bi aussi liñ ko faram faccé mu nekk ay patch yu am solo xamna ñibbi toog ko dina doon lu sawar lool inshallah ñu doon sawar inshallah jërëjëf ñu ngi ak euh, monsieur le ministre Habib Sinek, nekk président conférence des leaders Yewwi Askan Wi ñu bàyyi ko mu wax ñu waral teewaayam fii ci ak dédication waaw ni suñu xarit Sidi Lamine sama mbokk mi sama collaborateur Seydou Guissé Sall Sidi yàlla def boole woon ñu ñu nekkoon ay xarit moom a taxawaay boo rafet Sénégal tey bind livre boo xam ne bii ah livre bi yàlla dafa def bi mu génne àdduna bi soo de génne mais livre bi dafa mel ne tey la war a la gën a am solo ci Sénégal ñu di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yërëm ko aram ko aljanna gi nag moom dëgër na lool ndax ñi fi bay doomam Cheikh Niass ak ñi mu ànd ak Walfadjri vraiment tubaarkalla yàlla yàlla saxal ko 个主。 en tout cas xemanteefu jiite réew mi war nañu mën a jàpp ni aussi que euh, Walfadjri daam lu ko mooñ askan bi la mu ngi suñu côté parce que tout simplement lu ñuy wootee maanaam askan bi def ci gis boppam sas la sas bi moom mooy nañu fex ba lu ñuy woote buñ ko wàcc parce que bés buñ ko wàccee Walfadjri danañu bàyyi te danañ ko recevoir. bokkoon nga tamit dañuy xeex si bi moom. xeex bi gis ngeen ko dem nañ ba attekaay bi nga xam ne mooy CEDEAO mu jox ñu ndam Macky Sall tëdd ci suuf euh, lànk ba carré ne du ko jëfee euh, bu fi sii nekkoon moom euh, xam naa dana ci xartànk tubéyam mais loolu tey fu mbir mi yem rek moom mooy en tout fu ñuy yóbbu moom mooy démocratie Sénégal dafa sooke et tey comme nu mu koy waxee livre bi gis nga ko apocalypse salvatrice la tudd

waaw yaakaar naa ne euh, teewaay bi lu normal la ndax euh, kilifa gi nga xam ne tey moo tax ñu teew fii tey mi El Hadj Sidi Lamine Niass yaakaar naa ne li mu liggéey ci réew mi euh, wax mën a waaye day jaadu bu ñu koy sargale ñu mën faa teew rawatina tey ñu feeñal lenn ci mbébétam mooy livre boo xam ne dafa ñoon na ko ñu tuddee ko l'apocalypse salvatrice nga xam ne daanaka daf delloo ci suñu histoire mais di ñu wax lii ñuy dund tey waaye daanaka sax di ñu prévenir ci li nga xam ne moo ñuy xaar ci jëmmi jamono ah, day wane ne rek dimension intellectuelle nit ki waaye tamit ah, spiritualité dimension spirituelle ñëpp xam na ne nitu diine nitu yàlla la te lii mu fi def day woy bu rafet woo xam ne du fay ba mukk kon nag tey bu ñu euh, Cheikh Niass euh, yónnee invitation dañu war a teew bu ñu ko yónnee wul woon sax ñi yëg ko dañuy teew ndax noonu rek lañ ko mën a delloo njukkal ndax liggéey bi mu def ci démocratie liggéey bi mu def ci réew mi liggéey bi mu def ci xeex ngir askan bi ba taxawal tey lii nga xam ne empire laa ko mën a di wal fajari ah, yaakaar naa ne euh, liggéey bu mucc ayib la boo xam ne fu ñu toll war nañu jaajëfal ñi fi nekk doomam Cheikh Niass bi nga xam ne moo jël yan bi ànd ceeg mbooleem ses collaborateurs ñoom Moustapha Diop ak yooyu di def liggéey bu mucc ayib teg wal fajari fi ko El Hadj Sy Lamine Niass tegoon mooy ci wetu askan wi benn patron la am mooy askan wi comme ni mu ko yàgg a waxee donc yaakaar naa ne loolu day jaalu ñu teew jërëjëf bu euh, Walfu FM euh, tey fii ci bi mu génnee àdduna ba tey euh, ñu bàyyi tey bi naka la ko programme tey il faut d'abord ñu fàttali ne programme ñaan la woon parce que nit ku génn àdduna suñ dee célébrer bés bu mu génnoon àdduna li mooy ñaan moo tax ci suba waa fans bi ñoom ñoo ko démarré ak jàng alxuraan waxtaane waat euh, dundu Sidy Lamine Niass ak Oustaz Hady tey jii ci ngoon nag ñu doon def cérémonie dédicace muy téere boo xam ne Sidy Lamine Niass daf koo bindoon 2011 mais mësu koo génne téere la boo xam ne daanaka ku bokkul ci njabootam mosoo ko liir ñun nag bi ñu demee ba toog xool ne li muy bind yëpp doon ko wax ci 2011 adduna bi mi ngi commencé di ko dund ñu ne lii nañ ko génne Sénégalais yi liir ko livre bi tudd Apocalypse salvatrice su ma ko noon a tekki mooy àdduna bu tukki waaye bànneex di ci jóge xam nga bu ne adduna bu tukki ñëpp dañuy dañuy tiit mais Sidi dafa mës a gëm ne boo daan dégg sa daan wax ne réew mi révolution moo koy defar moo tax bu ne adduna bu tukki ba pare ngi xéewal ak bànneex ak ngëneel di ci sottee di ci sotteeku loolu mooy li nga xam ne moom la bind ci téere te ñi ko jot a jàng ñëpp wax nañ ne Sidi Lamine euh, da ngay am impression que ne ba léegi mi ngi ci ñun parce que li mu ci bind ak di ko wax yëpp loo xam ne la ñu ngi nekk di ko dund te 2011 la ko waxoon. Eh, a wax ci wuuteem ak ñàkk a nekkal. xam nga kër gu mel ne Walfadjri ak euh, nit ku mel ne Sidi Lamine ak dimension bu mu tolloo buñ ne laa lu mat juróomi at a ngi nii nekku fi gisatuñ ko. ñu wax ko ñu bañ koo wax jafe-jafe yi du ñàkk mën naa ne sax day bari lool mais jafe-jafe yooyu li ñu koy yombal mooy askanu Sénégal parce que euh, Bougane Gueye Dany wax na ko sànq te moom mi ko wax fii la nekkoon ci Walfadjri ba pare di diriger groupe de presse parce que dafa ne Walfadjri du groupe de presse comme groupe de presse yëpp te mooy dëgg nag euh, parce mënuñu ko considérer comme un simple groupe de presse ab famille la ab idée la ab esprit la boo xam ne ay sénégalais yu bëree bëree bëri ñooy dem di ko doxaale man jàpp naa ne sax na ñoo ñooñu cëpp doole foofu moo tax juróomi at yi li muy métti métti daanaka suñu bët jooyul benn yoon yenn saa yi nag nga sentir wéet ndax bu fi si nekkoon xëy na yu bëri duñ ci jaar mais teewul bu ñu geestoo gis askanu Sénégal dañuy gën a dëgëral rek. gis nañu tamit ci ci mu jëm dafa mel ni sosoon na mu defoon mu koy teg si rajo bi tout le temps est-ce que jàngoon nga message bi. mais li man loolu moo may reeloo souvent mooy message boobu bi ko Sidi di wax man maa taxaw ak euh, maam Anta Ndour ak Betty Mbuub ak Betty Mbuub ak Thiaba Dramé ma doon présenté émission boobu ah, boobu Abdourahmane Camara mi ngi taxaw mais bi Sidi faatoo bañ commencé def ko benn jingle def ko di ko di ko jàll ci télé bi lu bari man déglu naa ko ay semaines yi semaines yi semaines pour ne pas ay weeri weer fàttaliwu ko fan la ko Sidi waxee woon ak kañ la ko waxoon mais defe naa Lamine Diawara mii moo ma envoyé vidéo originale bi ma gisee dama ne mais ndekete man la doon man la doon waxal man waxal mais parce que xëy na man maa fa taxawoon nag maam Anta ak Betty mais message bi Walfadjri gépp la ko jëmale woon mën naa ne ndawu Sénégal yëpp la ko jëmale woon ndax li mu ci wax lu simple la mooy askan wi ñoo leen dëgëral te Sénégal tant yaa ngi gëm dëgg comme ni ko Cheikh Bara waxee sànq di taxaw ci askan wi heure boo soxlaa askan wi fekk la fi Sidy Lamine moo doon wax souvent moom du découragé mukk ci askanu Sénégal ñun aussi du ñu découragé jamais ci askanu Sénégal